ak taalibe Serigne Touba yàlla defal ko ko ni mu ko bëggee ginnaaw loolu ñu ngi dellu siyaar sëriñ fallu Mbakke moom Serigne Sam Ndoulo mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Sam di siyaare Cheikh Abo Baraka mi nga xam ni tey jii Kazu Rajab di màggal ko Alaaji fallu mooy nekk ci bopp ba di jëwriñ ji di siyaare sunu xarit sunu Serigne sunu lépp muy Serigne Abdul Karim mu Cheikh Amadou Fadel di ko ñaan mu yàgg lu dëgër jotaay bi nag li ko waral mooy bis bu ñuy def muy sant Serigne samdu la le 4 avril fee ca Touba Ndamatou ñu koy wooyee sant Serigne Sam Doula waaye parrain en vie Alaaji Baaram Serigne falu lan ko dara jaale muy bis boo xam ne bis bu ñu ñor la di bis boo xam ne bisub dajaloo la jàngal xuraan jàng xasaayit berne waxtaan ci Serigne Touba ak gaay yu baax yi gi nag ku ne xam na ni daaw ñu ngi ko àndoon nag soxna moomu Mbakke moom Serigne saam Doula di sunu mag ak soxna May yàlla def ren fekk woon ko ñu ko ci hommage ak Serigne Jilim Serigne Mamour Massamba ak Serigne Jili Sourang ah, daaw nag Serigne fallu Diatara mi daanaka taxawaay bi lépp moo ko taxawee ak Serigne Khadim Fall ak Serigne Mamar ak Serigne Moussa mi 24 acte nag duma wax ci ñoom ndax euh, taxawaay bu di taxaw ci réew mi ci Sénégal rawatina nag lislaam ji rawatina yoonu murit Serigne Afe jaw taxawaayam ci yoon wi ku ne xam na ko. waaye nag 24 actu seenub liggéey dafa rafet lool ñu ngi leen di ñaanal ci barkeb Serigne Touba mu dem ba doon ay télé télé ndax kat ñun lépp lu ñuy def ci yeneen koy jaare ndax Serigne Touba rek ka leen ñor loolu ñun xam nañ ko bu baax ba siyaare bi Serigne Xadim Ndaw bi loolu taxawaay bi ngi ci tafe ñëpp xam nañ ko kon daal bis bi la 4 avril la buñ Kazu Rajab ba am ñaar ba ca ñetteelu fan ba lañ koy def bisub Serigne Cheikhou mi boobu nga ne moom lañ tuddee raxas mu Cheikh Amadou Fadal ba ci suba ga lay doon maa ngi ci woo jullit yëpp di ci woo taalibe yëpp di ci woo Sénégal gépp di doon bisub la boo xam ne bisub ñaan la waaw maa ngi koy defee Touba Ndamatu ci kër Serigne Modou Boussa Dieng ci kër Serigne Samdou la foofu jàkkaarloo kër Serigne Faax mu Cheikh Mamadou faa fi leen koy defee maa ngi ciy woo jullit yëpp rawatina talibe yëpp di ñaan ku fa teew say bàkkaar yëpp faxasu ci barke Cheikh Mamadou Fadal ci barke weer wi jërë ngeen jëf may jox Serigne Fallou Diatara ñetti kàddu rek. ginnaaw bi nga sante yàlla julli ci yonent bi. Eh, yëgal ko sëriñ Muntaxa ñaanal ko mu yàgg fi loolu te gën a wér yëgal ko sëriñ Abo ñaanal ko mu yàgg fi loolu te gën a wér eh, yëgalit ko sa xarit sa sëriñ sëriñ Abdul yàgg fi loolu gën a wér eh, yow dangay ngay nitu ñëpp di nit ku baax di nit koo xam ne ku tàlli la ku bëgg lu baax ñi waxtaane sëriñ Tuubaa jàngal Alxuraan te bés bi loolu lañ fay yendoo ba guddi kon yàlla nañ ko yàgg fekk muy 4 avril te bu ñëwee luñ ci amoon ci ay xéewal daaw ñu am ci lu ko raw allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim